asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 26 juillet 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal moo xam sunu làmb la moo xam les écoles la ba ci record ba ci Leewtoo TV fu nekk rek bi ñu xëyee tey daal liñ ñu xëy wan mooy kii nga xam ne moo di Modou Lo Modou moo xam ne day démb woote woon na ca parcelle lii nga xam ne moo di open press am mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal démb moom parcelle foo sànni sa mbattu day tàkk mu mel ni ki daal gis nañ Modou Lo boo xam ne nii day démb moom ah jàppal caractère ba ak itam décision ba daa mel ni jël na ko fi mu nekk nii mu mel ni ki daal 2-0 moom mooy li nga xam ne nii moom la waa parcelle di réclamer maanaam daal 2-0 moom mooy li ñu décrété sas ko Modou Lo mu andil leen ko mu mel ni ki nag jamono jooju moom Modou mu ngay tontu laaji taskati xibaar yi nee na liy leer ba leer day Eumeu Sène moom li mu war a xam mooy muy xeex muy bëre lu mu ci mën a def rek dama koy daan ndax nag lu mu ci doon rek maa ko ko dàq danaa ko corriger ba pare door koo daan mu ne ñu ne ko combat bu yàgg mu ne moom bu keroogee moom du baax ci moom ndax na combat bu yàgg moom du ko amal njariñ ndax su keroogee itam fa mu fucc fa mu cay mujje du baax ci moom moom daal dafa mel ni fi mu nekk nii day ne na couronne bi daal la fas yéenee nangu ji andil ko waa parcelle moom Modou ñu ne ko waa ñi ne dañuy jàppale Yékini nag dañuy jàppale boog Eumeu Sène di ay sëriñu Yékini muuru ne loolu moom amul ay wax la rek ñi koy wax dañuy wax lu leen neex rek waaye kenn koo xam ne nii daal loolu ngay wax ne am na Modou na moom gëmul sax wax yooyu mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom Modou Lo moom pare la def nee na daal couronne bi moom mu guddi mu naaj mu gudd mu gàtt moom jëli ko képp laay def mu mel ni ki nag démb weetu wun ca lam doon def ndax ñoom Papa Sow ñoom góor a Sock ñoom Fara jàppal mbër yooyu yépp ñu nga fa woon kenn ci ñoom daal manqué wu kon Yékini Junior ak Moussa tëgg tëggkat ba mbayang loom itam way lu neex Moussa Yacine tëgg lu neex public ba dal di yëngu dal di jaayu mu mel ni ki démb moom parcelle loo ci mën di dégg de tàngoon na jër jër jër waaye itam neexoon na ba yegg ci lool ci ñi nga xam ne ñoo di ay soppey Modou Lo mu mel ni ki nag yëglikaay bi day nee na Modou Lo nag ñeenti defi mu ngi koy xaar ci combat bi mu jëm dimanche jàppal ba ca njëkk mooy lii nga xam ne nii day mooy couronne roi des arènes bi mu jël ko boobu benn la ci yi koy xaar ak itam confirmé ci digganteem ak Eumeu Sène wane ne moo ko man boobu itam ñaar la ci yi koy xaar ak leneen loo xam ne tamit moo koy xaar muy ñetteel ba mooy dindi lii nga xam ne nii moo ko daloon bi saison bi doog a ubbi di treize janvier digganteem ak Balla Gaye muy defat ba mu mu effacé lool ñuy wax at yi mu mën ko nag retardel maanaam daal bu daanee dana tax digganteem ak ama moom dana gën a sori ama ba de ngir bëri ak moom mu mel ni ki sunu làmb moo jàpp ne day ñeenti mbir yooyu mu ngi xaar ki nga xam ne nii day moo di ki nga xam ne moo di Modou Lo ci combat bi koo xam ne nag bu dee naa ak ñoom ñaar ñëpp muy Lac de Guiers numéro deux Lac nag mu ngay wax ca combat ba nee na li leer ba leer day li leer naññ mooy Lac nee na xeex moom mënta bañ am ci seen diggante nee na ñoom ñaar foo jaar ñu dóorante ay crosse parce que nag loolu man mënta ñàkk ci diggante boobu bu ñu demee fii nga xam ne nii tamit ba tey moo ci yëglikaay bi Eumeu Sène itam day am na loo xam ne nii ci combat bi day mu ngi ko fay xaar ni pression ci moom ndax nag sunu làmb ne na jàppal booy ñang ginnaaw ba mu ñàkkee combat am par recours Ama Baldé gisee su ko ak ay bët mu def année balance mu mel ni ki nag fi mu nekk nii kon li wa Pikine war a am de Eumeu Sène moo ko gàddu ngir dimanche moom loolu moo koy xaar ca combat ba waaye yëglikaay bii nga xam ne nii de moom moo di les ko les ko tamit ñëw na moo doo ngay wax de nee na daal bu baree day daanu bu xeexee day ñàkk lu mu ci mën a def daal dama koy duma loolu la moo du wax waaye nag am na ñoo xam ne day ay jàngatkat lañu wala ñu di ay technicien xëy nañ ci rek yëglikaay bi di record ñoom nag ñu ngay wax ca combat kii di Ibrahima Mbaye indi na ca xalaatam nee na Eumeu Sène day daa mel ni côté technique moo gën a nekk en l'aise waaye tamit kii nga xam ne ni moo di Youssouf Tall di ko su moom nekk ca Thiès ne moom itam ñëw na joxe ci xalaatam ajjuma juufit wax na ba fa tamit xëy na indi xalaatam ci combat boobu ba tey bi nga xam record waaye record tamit ñëw na di ñu xamal ne kasa ñaari mbir yi day la ñu déclaré ca CNG ba daal mooy cinquante millions maanaam juróom fukki millions yëglikaay boobu moo xëy tey ñëw di ñu ko wax mu mel ni kii daal diggante am ak Modou moom fi mu nekk nii day la olof yooyu wax rek mooy li dafa waxu li aay di njàmbat noonu la ko yëglikaay yi xëy tey ñëwee waaye kii nga xam ne nii moo di njuga moom njuga ja di membre tamit staff ca xarañ loo wala ca écrit roog énergie moom mu ngay wax ne na ëma seen moom daan bu gaaw a gaaw a gaaw la ñu koy daan père njuga moo xëy tey di wax loolu kii moom bañ ko daanee ba pare léegi nag aw yoon lay wër wu mu jaaraat ba jóg muy alaaji mbay mu école de lutte Fallaye Balde allah ji nee na daal léegi fi mu nekk nii moom ginnaaw bi ma Adama Diouf daanee pare naa ngir ki nga xam ne moo di Tafa géej de wala police mbër mi nekk ci làmb ji di Big Pato nee na ñaar ñi moom ku ci pare rek man pare naa man allah ji mbay ngir defante ak yow ñoo xam ne moom pare nañ ba lekkob avance te ke leen joxob avance di promoteur bu bees moo di Pape Ndoye bu Fass ak Jackson Senior Baba Diaw mooy promoteur bu bees ba moo dugg si ci làmb ji tëgg combat espoir boobu mu mel ni ki nag wan nañu ñaari mbëri ñuy joxante ay loxo promoteur ba nekk ci seenu diggante mu mel ni ki daal kon jàppal boobu combat moom loo ci mënti dégg taxaw na waaye li leer ba leer daal yàgg jàppal lii ma lay wax tey la aljuma yàgg tey la 26 juillet yàgg maar jàppal ne day dañuy balu ñëpp ak dibaal baal ñëpp ak waaye yàgg mar ki ma ñawal jar naa wax kooku mooy maam Cheikh Anta borom daaru salaam ak gaawan maam Cheikh Ngom kenn du moom gis nga tey fa ma génne waaye Ibra Ibra Diouf ca marché Tilène moo fi jaar nag moo ma jox waax bii di waaye ndey Kumba Fall la nga ruus te bu lëkk tamit cula waaye loo ci mën a dégg xol yàlla nay féex tey sedd yàgg yàgg mbaa xam nga ne meer mu bari baaxut mer wóorul yàgg nanuy kontaan di bég tey bégee. Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi tey ñu ñëw ak yéen si euh, sunu lamb eco ak euh, lii di record ñoom ñëpp ñëw nañ daal si actualité di lamb ji Babacar maa lay nuyu. Euh, ndey kuma maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu di la ñaanal jàmm di ko saaxu ci yow ah. di nuyu internautes yi yëpp. comme niñ ko waxee rek di leen nuyu ci àjjuma ji di leen ziar di leen leen baal di leen ñaanal jàmm fu ñu mën a nekk Babacar nag dafa mel ni que euh, coow lu coow li mooy combat royal bi di am euh, dimanche incha allah si stade Léopold ngoo déggante diggante Eumeu Sène ak euh, ak Modou Lo ñoom yëpp ñëw nañ si ki si mel ni sunu lamb record ak écho sunu lamb moom à la une ngi ni wax ni que waa Parcelles moom la ñoo ndax dem Modou def na open press daal ñoom gis nu dara lu 2 2 0. 2 0 waaw ñoom de loolu la ñuy seen mbir démb boo demee Parcelles moom foo sànni mbàtti mu tag tere ak apes ak la ko wër lépp yaa ngi dégg Moussa Yacine fëgg sabar ya mbayang lu mu way way mbir ma jaxasoo mu mel ni ki daal. Modou Lo fecc fecc mi Modou fecc <laughs> mu mel ni ki démb daal laa mel ni waa parcelle moom ah tàggatoo ba mu doon def ak ay supporteram avant dimanche vraiment neexoon na trop xumboon na trop parce que mbooloo ma ñëw nañ ay mbokki mbërëm tamit ñëw nañ jàppale si ko moo xam ñoom Papa Sow Yékini Senior Franc loolu nag comme li olof yi wax rek laay Pythagore mbooloo mooy doole ñoom daam seen tafa mbër kenn desul parce que loolu mooy li war a am ñoom nag actuellement 2-0 laaj Modou moom dana leen indil 2-0 mais loolu moom comme la may wax rek bu bésu làmb ja ba war bi soufflé ca la ñuy xam ndax dana indi 2-0 wala dañuy mat si niil maanaam 1-1 ndax bu dee moom daa daan 2-0 mooy am su ëmb daanee 1-1 mooy am ndax ku ne kon dañ naan daan nga sa morom. si question yi nga ko doon laaj nag démb yaa ngi fa woon équipe bu Leewtoo TV ñi ngi fa woon laaj nga ko daal par rapport ak euh, li nga xam ni euh, sëriñ yi nga xam ne sëriñ yi Yaxya yëpp Jóob Yékini te ñëpp xam nañ diggante maag Yaxya Jóob Yékini ñoom ni ngi jàppale Eumeu Sène moom daal dafa mel ni gëmul loolu Babacar waaw ko jànge bëriki dem ci yëglekaay bi di suñu làmb mu ci gëstoo na ay nit yoo xam ne ay yoo xam dañ doon jàppale Yékini ñu ngi jàppale actuellement Eumeu Sène man nag bi ma posé Modou Lo question bi démb Modou moom dane loolu moom gëmu ko sax parce que ay wax la ko jàppe rek waaw diggante Modou ak Yékini nag yaakaar naa ci rapport bu rafet yàgg nañ ko xam ñu seq lu bare bare bari mu def ko idolam def ko léppam kon nag bu nit ñi xëyee gis ñu ne ay nitu Yékini ñu ngay jàppale Eumeu Sène ah des na laaj ba xam dëgg la wala dëgg Modou nag weddi na ko waaye comme li ñuy wax rek ah nañu yónni yàgg làmb ji moom bu lu lu lu Youssou Ndour noonu lu guddi gi di gën a dem rek yaram bi di gën a tàng mais lu ñuy gën a avancé di gën a dem sa làmb ja ba ba bisu làmb lu ci am rek dana feeñ waaw ndax am na yoo xam ne ci làmb neexu la waaye nag euh, làmb moom ak ku la mën a jàppale ak ku mu mën a doon itam jàppal ne biir géew ba moom la fay def la fay am yow mbër mi yaa ko fay def ndax nag man mi buñ ma jàppale woon nag lu mën a xew tamit su ma jàkkaarloog Eumeu Sène wala ma jàkkaarloog Modou Lô yaakaaruma dinaa leen mën a daan bu fekkee te defuma nañu def maanaam entraîné wuti doole kon li gën a wóor mooy entraîné ba nekk au top ànd ak ñi la nga war a àndal ñëw ut si ndam Babacar ñu jógee suñu làmb dem si record record moom lu mu nu indi tey euh, techniciens yi maanaam euh, entraîneurs yi nga xam ne ñu nekkoon drapeau chef l'état te yow woon euh, yenn yenn équipe yi te ñu nekkoon si podium bi mooy ñu jël premier deuxième troisième ba si quatrième ku si mel ni ñoom Adjuma Diouf bu équipe bu Kaolack ku si mel ni que Ibrahima Mbaye bu bu Ndakaaru ak ki nga xam ni mooy Bafa bu équipe bu Fatick ak coach Thiès bi tamit ñoom ñëpp daa jox leen seen xalaat si combat royal bi. waa ñoñ de seen avis joxe nañ ko ci journal record yaakaar naa ñooñu ak seen xalaat suñ ko joxe ah, yaakaar naa ñi war mbër war nañ ci mën a bàyyi xel parce que ñooñu ay techniciens lañ de haut niveau tey ci làmb moo xam Ibrahima Mbaye la moo xam Adjuma Diouf moo xam Bafa Gueye ak coach su boobu parce que coach su bi moo jël drapeau chef de l'État Bafa Gueye teglante na koy at di ko jël Ibrahima Mbaye moo ko jël daaw Adjuma Diouf it ka saalika naka noonu mbër la woon ba pare tey muy encadré kon yaakaar naa suñu xëy di wax na na gars yi bàyyi xel ci li ñu wax parce que bu dee ku mel ni Bafa li ma jot a jàng ci waxam moom jàpp na ni mutlu combat bu dina ko arrangé yaa ngi dégg combat bu yàgg bi dina ko arrange loolu nag mooy làmb làmb euh, mën nga ñëw tey tamit ñu xalaat ne lii moo lay arrangé far ñëw leneen am parce que làmb comme ni ñu waxee du ëmb day xëy wasin loo ci mënti dégg nag euh, samedi daal wala boog dimanche daal si kàttanu yàlla moom yaakaar naa dinañ am combat bu métti de stade Léopold Senghor parce que ñaari mbër yi ma gis décision bi ñu jël ak ni ñu jëlee seen combat bii non xalaat naa ne ndey gu ma faal nar nga gis combat bu méttee métti combat boo xam ne xalaat naa xeex dina ci am waaw balaa jël la am man baaba Babacar gëm naa ne xeex bu metti dina ci am. loolu sax loolu la xeex boobu ngay wax moom la ñuy dëggal tey ci journalu Echo parce que Modou mi ngi wax ni euh, su xeexee ma su xeexee ma duma ko su bëree ma daan ko. waaw loolu la wax ci les Échos ah waaw loolu nag <laughs> comme li ma lay wax rek. làmb avant làmb communication bi ngay def bokkul ak boo duggee ci biir géew bi li ngay def mais avant làmb nag communication bataille de communication day am pour déstabiliser sa adversaire pour wax ko wax yoo xam ne di nga ko mën a indi li problème ba psychologiquement bu ñëwee ci bés bi na am na mu doxale pour nga mën ko cee profité daan ko xëy na moo tax moo du ne bu bëree ma daan ko su xeexee ma duma ko loolu nag mbër yàgg na ko wax moroomu mbërëm waaye nag saa yu ñëwee ci giiw moom la gën a yomb ak la nga liggéey ak say coach loolu la ngay wane te mbër yi du ñu mës a wane mukk li ñuy liggéey ak seen coach yi duñ ko wan euh, euh, photographe duñ ko wan caméraman duñ ko wan kenn li ñuy def yëpp dañ koy nëbb su bés ba jotee nag ci la ñu koy ñëw teg ko waaye loo ci mën a dégg daal moo ko ëma seen ku nekk digg nga sa ay duma ku nekk digg nga sa morom jëlli bu rëy loolu nag moom la amateur xaar xeex bu tar jëlli bu rëy waaw ñun daal loolu la ñuy xaar te itam <laughs> xalaat naa loolu dina am ci combat bi Babacar xaar boobu sax moo tax xëy na combat royal bi combat bi moo xaw a nëbb combat bi am samedi mooy journée Fallou Ndiaye bi euh, nu teg fa nag drapeau euh, Abdourahmane Diaw muy DGA bu Leewtoo diggante Franc ak euh, ak ak Nguer am na yeneen combat yu neex yoo xam ne dina fa am suba si arène nationale Babacar. waaw suba Fallou Ndiaye ñëw arène nationale xam nga loolu du mën a ñàkk góor a soog Tyson 2 comme ni ma ko waxee doomu dàngu Farouz. Maama Lamine Jokkeel bu Fatick waaye drapeau Abdourahmane Diaw di suñu kilifa borom ADN nekk fii ci Leewtoo di borom asalem moom tamit drapeau ngeer a koy bëre ak ki nga xam ne ni mooy Franc kon suba balaa ñoo dem euh, euh, fi nga xam ne mooy Léopold Dimas ñu ngay jëkkee nag samedi ji ca Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye itam vraiment am courage jël lu mat cinq grands combats wala six sax ndax bis mi ak ki mooy Cheikh Super jamono grand boo ko tëggoon Ibamar amateur yi dañuy ñëw mu ko ci muy ay combat yoo yu bare bare bare mu andi ko Dimas waaw mu andi ko ba samedi kon Fallou itam ñu ngi ko ñaanal journée boobu suba yàlla na ci génn ak jàmm parce que tamit li mu def noonu lu jafe-jafe jafe la te foog nga ñime li ngay def pour mën ko def mais drapeau Abdourahmane Diaw moom nañ ko waxee rek ñu ngi sensibiliser ñëpp ah, bu kenn manqué asalem ak Leewtoo ak Fass ak yëpp parce que Diaw itam ba point e ku ko xam-xam ne ay am na ay rapport ak mairie Fass mook euh, ki nga xam mooy Ousmane bi maire Fass yaakaar naa ne am nañ ay waa seq nañ lu bare bare bari kon ñu ngi wax ñëpp daal nañu waaj pour suba rek waa palmaan yeeg cuubi yéeg jasneer yeeg mbasin riis yi ak abbaay yi ak waax yi sax da ciy baax ndax dafa tàng yi ma sol nii ñu def ko rek dem ànd ak jaww jërëjëf Babacar si kàddu yooyu leen di tàggoo di leen jox dig daje suba samedi si arène nationale dimanche Léopold Sédar bi balaa boobu nag may euh, nuyu sama yaay Mère Sow ak sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye dinaa ko excel ak jàmm salaam di nuyu aussi euh, Khadija euh, Tandine Khadija Diallo chéri Tandine depuis depuis Italie di nuyu aussi Eva yaayu neen aussi di ko di ko nuyu lu bëree bëri di nuy aussi Zey depuis Mbour di nuyu aussi ñëpp daal sunu am na jàmm yëpp Babacar. waaw noonu lay demee nuyu nañ képp ku ñu suivre rek si Leewtoo à travers le monde mais itam di wax ne combat royal bi nag nañu fàttaliku ne drapeau Youssou Ndour la mu ne drapeau Youssou Ndour nag c'est le mbalax artiste international nekk royukaay def li mu waroon def ci way parce que mën naa ne amut lu muy prouver ba tey mu samp ay société ay nit dafa liggéey kon yaakaar naa loolu tamit bu ñu ko delloo njukkal Moussa Diop def ko loolu lu war a am la du mën a ñàkk parce que euh, àddina dund ak dee fi nekk ah, dañ koy jaale ndax ku ne dégg na digganteem ak Ahmed Amar bi fiy jóge gis nga fii ñu nekk nii ci point ak fi ñu ko doon jullee sori gis nga dëkk bi tey ni mu mel fii kon ñuy ñaan yàlla suufu daaru salaam yàlla na woyof ci ko moom Ahmed Amar ak bépp jullit bu tëdd ci suuf àddina moo tëdd noonu ah di nuyu ñëpp di ballu ñëpp ak waaye seex du ko fàtte boroom daaru salaam Couture maam Seex Anta moo ma génne fii sama doom jooju ci ñaw bi ki nga xam mooy Ibra Diouf les jeunes amateurs. ci caaya bi ngay wax bi Ibra Diouf jeune amateur moo def waax bi maam Cheikh def ñaw bi maam Cheikh borom Daaru Salaam Kuti di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne xol bu sedd yaram mu sedd yàlla na ko ñëpp am waaye kenn du sama turandoo mbay Mbaye kër jóob borom mouvement bi doomu ndayu Karim Wade borom oto yi ca New York Mbaye kër bëgg naa la. di nuyu Aïcha Faye madame Nia di ko wax ni ngeen ko gis euh, lundi incha allah di nuyu yàgg chéri Sala.